asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñi nga xam ni yéenee safoo chaîne bii di Buzz Actu 221 ñu ngi sàkku baax ngeen abone aimé partage commentaire like ndax kat saa su ne loolu dina nekk li nga xam ni luñ daal di jàppale la mën na ne ak bis rek moo daal des li nga xam ni dox na ci procès kii di Adji Sarr ak kii di Ousmane Sonko mu nekk procès bi nga xam ni procès appel la ci ginnaaw foofee ci chambre ci li nga xam ni ginnaaw bi ñu renvoyé woon bile mbir ndax kat mardi passé bi ñu génn la woon waaye kat ñàkk a teewaay kii di njiitalu Pastef bile ak li nga xam ne moo di juge boobule jël dogal bu mat sëkk ngir kat yoon moo ko may li ni ba tax kat mu daal di puusoon loolu procès ba yemoo li nga xam ni moo di suba le 23 bile. waaye boobu le mbir nekk na mbir bi nga xam ni taxaw na bu baax a baax waaye nit bëri na coow bu baax a baax na daanaka mën nañ ne ñu bëri daan nañ xamle bu baax foofee ca tribunal ba tegoo nañ fi li nga xam ne moo di lenn ci ay écrasement ngir kat boobu le procès. waaye nag procès boobu bile moom mi nga xam ni moo di activiste bile daal di wécc tulu Mollah Morgun indi na ay leeral bu baax a baax jëme la ci li nga xam ni moo di vidéo yi nga ci internet bi la waaye tamit yi nga xam ni daanaka mën nañ ne lenn ci parti ku jéggi préparé nañ ko bu baax a baax jëmale ko ci njiitalu Pastef bi bile ngir kat fexee de tout lépp rek ngir wàcceel ak ormaam wàccee li nga xam ni moo di lenn ci ay cëram fi mim réew di Sénégal tax na sax moom Mollah Morgan daal ci indi ay leeral yu am solo yi nga xam ni boobu nekk Sénégal yi la rawat na ñi nga xam ni ñooy safoo bu nekk kii di Ousmane Sonko njiitalu Pastef bi la waaye tamit di safoo bu baax projet Ousmane Sonko bi la déglu kàddu yi nga xam moom la ci Mollah Morgun daal di yëkkati ñëwaat. amuñu benn intérêt ñëw naa ay non vidéo amul benn vidéo amul dama ne ay vidéo am na foo vidéo am na ay faux bien monté man maa ko wax te je le répète et je le répète dama ne ay faux vidéo am na ay faux vidéo wax naa leen raconté naa leen ci benn bu leer nañ ne ni ñu monté Ousmane Sonko très professionnellement mu ñëw monté mu ñëw toog sol ensemble blouson man a ko gis samay bët ñu monté ko ma ne leen ay israéliens ñoo ko monté ñoom ñoo yore ay ay ay kii de d'espionnage ñoom ñoo yore ay logiciel d'espionnage ay logiciel de montage très professionnel de montage de photos et de vidéos très professionnel il faut que ça soit clair de montage de vidéos très professionnel man maa la wax ni man maa ko gis samay bët samay bët et c' est c' est des montages c' est professionnel na montage set wecc Ousmane Sonko sol ensemble bulu ñun dofu ñu toxuñu yàmbaanaa ñu sàngara ñëw def nii sol blouson bi yor benn frotté frotté yaa ngi dégg yor benn frotté le montage la yor benn frotté ñëw toog suñu mbub mi lonku mais ak loolu yëpp ñun ñoo ko gis on le dit et on mais man dama ne même ki ma ko woon def na ma booy gars yi lii lañ pré te lii c'est des foo ñoom nag lu ñu pare jëluñu ko sànni ko ci net bi vidéo yi ngay gis ni vidéo njalaxaan yooyu nga xam ne sénégalais ñoo ko monté noonu waa ji di maase ak noonu yooyu c'est des mensonges c'est des mensonges yooyu noonu sànni nañ leen ko yu ñu yor monté ko professionnellement jox ko ñoom Gabi Perez ak Idan Perez ñoom du ñu caaxaan kat Gabi Perez Idan Perez ñooñu ay boromu cerveau lañ c'est des israéliens c'est des israéliens ñoo liggéey lépp jox ko gars yi armement yooyu noonu gars yi duñ ko jël di ko sànni di ko dugal ci ay dossier gars yi jël ko dugal ko ci net bi naan lii la waa nangam non non non le jour ji la ñuy xaar pour ne nit ñi dañ koy génne c'est des c'est des vidéos montées très professionnel boo xam boo ko xool à l'œil ni du ko gis il faut que ça soit clair loolu yëpp nag mun nañ ñëw expliquer leen ko bu ñu leen waxee ne ay ojo am na parce que am na ay audio ay audio day def loolu dem leen ci métro yi dem leen ci métro yi ngeen xool gis nga voie yooyu nekk foofu ba léegi ñoo fa nekk te pourtant ña ko doon wax dee nañ bu yàgg dee nañ ñu nekk ci kaw bi xam nañ lu wax ñu ko wax dem nañ bu yàgg te pourtant boo defee même boo defee même arrêt bu bees da ngay dégg même voie bi parce que bu ñu amee voie bi dañ koy transformé luñ ci bëgg a wax wax ko ci. c' est l' intelligence artificielle mooy def da ngay dem fenn nga dégg metro tel ñu ne la euh, euh, métro Charles de Gaulle wala ñu ne la métro euh, whatever Jean Talon xamul sax Jean Talon dee bu yàgg benn même voix bi ngay dégg cent ans mille ans même voix bi ngay dégg te moom la ñuy jël di ko transformé l' intelligence artificielle mun na lool am sa timbre vocal transformé ko nu mu ko bëggee transformé ko nu mu ko bëggee noonu la ñu amee timbre vocal Ousmane Sonko yàgg nañ ñëw taxaw mais et eh, qu'est-ce qu'il faisait là ñaata lañ leen jàpp buntu kër Ousmane Sonko ñu yor seen oto def fa ay matériel sophistiqué ñaata yoon lañ leen jàpp ñu yor ay di enregistré Ousmane Sonko buntu këram di di ko enregistré ci biir këram yooyu noonu pour lan la woon expliquez-moi léegi. amul audio amul dara gars yi defuñu dara ñoom gars yi defuñu dara comme ñeen di dof yi la ñuy wax noonu parce que gisuñu dara non non non amul dara ñoo dañu wax yow xool naa amul xool naa document bi mais document amul benn photo amul benn vidéo amul benn di mel ni kajo kajo fekk amul dara ja lu ñuy wax léegi ñoom léegi la léegi yow gouvernement bi jël ay borom xam-xam yóbbu leen buntu kër Ousmane Sonko ñu teg fa seen oto ay semaine teg fa seen i matériel alors pour lan la woon répondez-moi parce que waxtaan la de bu ma leen poser question tam da ngeen may répondre

jëluñu seen i oto def ci matériel israélien yi jox sophistiqué indi ko taxaw buntu kër Ousmane Sonko des semaines ba mu remarqué ne oto ngi fi ñu xool fekk fa ay matériels yu sophistiqué ñu toog mais c'était pour enregistrer sa voix c'était pour l'enregistrer c'était pour récupérer des voix c'est que donc c'est pas anodin dañuy jël ay voix yu ñu jël di yóbbu pour transformer ko pour transférer ko pour def ci lu ñuy def lan moo tax ñuy sous écoute doomu aadama Ousmane Sonko ban 1900 lañ nekk di ko sous écoute ban 1900 lan moo tax ñu doon sous écoute Ousmane Sonko kon dañ ko sous écoute parce que dañoo amoon envie rek écoute ko quoi depuis deux ans le gouvernement mi ngi écoute vous pensez que gouvernement peut tenir benn benn un pays en haleine rey ay doomu aadama ñëw taxaw noonu noonu rek quoi ñëw bëgg a def benn procès di forcer waa ji kaay ji def procès parce que moom euh, euh, amul yoru dara daal yoru dara daal. mais ko ku leen ko wax sax boo leen boo leen dee doom bu baax xam ni c'est c'est faux gouvernement bi dina lakk dëkk bi ak dëkk bi ni muy tàkkee yëpp mu insister document boo xam ne amul dara procès vierge bu amul dara procès document dossier vide mais sa waay ne dee dina organiser procès mais yéen kon kon kon kooku daal moom moom amul benn mëntewul dara daal moom lu ko neen kon nag gouvernement am na fidde plus de vingt cinq morts procès boo xam ni dossier boo xam ni vide vierge ay audio génn fi nga ne di nga procès Adji Sarr ñu jàpp ko muy wax muy muy flagrant délit comme quoi que ni complot la nga mu ne moom pro dina def procès ñu ñëw indi dossier médical mu dina def procès lu indi bu dina def procès kon kooku dafa indi loxo neen daal. yéen yaakaar ngeen ni Macky Sall dafa def benn procès boo xam ne daal mu ay nitam moom yoruñu dara moom yoruñu dara monté wuñu dara ñuy ñëw rek loxo taxaw ñu ne ah Adji Sarr yaa wax lii audio yaa ngi nii mu ne man la kay <laughs> Macky Sall ak kon ñi ñu rayoon ñëpp man la ñi fi dóoroon yëpp man la lakk bi yëpp man la li fi xewoon yëpp man la kon lépp lépp Ousmane man Macky Sall ñuy saaga ndeyam na Macky Sall moo moo ngeen foog ne Macky moom loolu lay liggéey ko moom mais loolu ku leen ko wax sa ngeen war a xam ne kii wérut war a amul dara ku leen wax ne non ah non ah dara amu ci non c'est vide non dama ne c'est vide ñoom def nañ ca c'est vide ñu jël def ca donc bu Ousmane Sonko demee buntu këram fekk fa ay affaire c'est parce que gars yi toog nañ fa di enregistrer di jël ay image di jël ay kii yooyu ba Ousmane Sonko jàpp leen flagrant délit oto ba ñu xool fekk fa matériel yi sophistiqué pour lan la woon tout ce temps ñu jël taxaw lool pour lan vous pensez que Macky Sall day ñëw di endosser les morts comme ça quoi benn projet boo xam ne comme ni ngeen ko jàppee vide ñoom defuñu dara monté wuñ photo monté wuñ vidéo monté wuñ audio monté wuñ image dañoo ñëw loxo neen rek quoi ay waay document boo xam ne quatre-vingt-dix cent page yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp presque affaire avocat Ousmane Sonko ñëw indi ay audio ay audio saari Sarr yeeg vidéo Adji Sarr guvernement bi nee na ñoom foog mu def procès xanaa loolu ku ko wax ren da nga naan kii moom lan la yor ba naan moom foog mu def procès ñun gis nañ ne ay fen la. dossier vide mais waa ji nee na kenn mënul fexe ba du def procès kon dafa def procès pour seetal Adji Sarr quoi vous pensez que le gouvernement dafa monter affaire am yëpp pour def pour pour pour seetal Ousmane Sonko ah d' accord kon procès bii nii gouvernement da ko def pour seetal Ousmane Sonko quoi daf ko daf ko jël pare di ci rey ci ay nit pour seetal Ousmane Sonko attaqué ci ay Sénégal pour pour pour pour seetal Ousmane Sonko. kon daal lii la procès da ko pour seetal Ousmane Sonko quoi pour seetal ko ba mu set wecc quoi. Macky Sall moom dafa def lii pour seetal Ousmane Sonko kon loolu ngeen bëgg a wax quoi kon dara amu dara gouvernement bi yoru dara yoru vidéo yoru audio yoru monté wul photo monté wul dara moom moom loxo neen la ñëwee daal fa toog ne Ousmane Sonko ñëw ay ju ak ay 32 avocats am Adji Sarr am 2 avocats Adji Sarr 2 Ousmane Sonko bi moom yoru dara. yoru dara ay loxo neen la yore moom dafa fii moom monté wul dara deful préparé wul kon lu mu doon def yooyu yëpp plan yooyu yëpp da doon kon dafa jël otoom def ci ay matériel ñëw buntu kër Ousmane Sonko di enregistré da doon dafa jël ay israéliens ñu ñëw fii nii ñuy enregistré nit yi di leen espionné mu da doon foo mu jël deux ans di préparer procès boobu noonu jël ay spécialiste en justice ñuy déglu affaire yi di xool lan la ñuy def pour détourner affaire contourner pour daan Ousmane da doon foo kon milliards yi ci Ousmane Macky Sall def ci affaire Adji Sarr bii ñu jël Adji Sarr ko. deux ans di ko giif di ko jox lekk di ko jox naan di fay ay papaam di fay yaayam yooyu tout ça gouvernement bi da doon foo dafa def procès bii rek pour seetal aji Ousmane ko ku leen di wax loolu da leen di nax daf leen bëgg a nalawal gars yi taxaw leen bu leen nangoo nalaw ci kàcc ak kàccër yi taxawaalukat yi xamul dara dama ne bu leen foo bu leen nalaw xippi leen seen bët yi taxaw luñ leen di wax c'est pour être prêt bu leen kenn nalawal. bu leen kenn nalawal bu leen kenn gëm loolu ay ay kasara kasara dama ne gouvernement bi c'est bien préparé le gouvernement sénégalais a mis des millions des centaines de millions sur l'affaire Adji Sarr pour toroxal Ousmane Sonko projet bii daf ko def pour toroxal Ousmane Sonko loolu nag toroxal too mënoo toroxal nit ci ay loxo neen il a monté ses affaires jël na ay israéliens fay nañ leen ils ont fait des vidéos très professionnelles ils ont fait ils ont enregistré des voies contourné ko ils ont tout fait du ñuy caaxaan kat bugguma ngeen toog di nalaw. ku xamul xamul bu kenn ñëw nan ay non lii amul lii amul xamul dara jàppee leen ko ko xamul innocent la xamul concentré wu leen bu ñu kenn nalawal dama ne lu ñuy wax nii mooy ngeen préparé le gouvernement s'est bien préparé sur des mensonges il a préparer des mensonges dérisoires professionnaliser ko jël temps pour sànq Ousmane Sonko moo tax ko moom mi nga xam ni moo di activiste bi la di Mollah Morgan kàddu yi la daal di yëkkati xamee la ko ci coow bi nga xam ni na ci njiitalu Pastef bi la ak ki nga xam ni moo di Adji Sarr moom mi nga xam ni moo daal di xamle bu baax a baax moom Ousmane ko daka sàkk lu bari yoon ci foofee ci eswit bu te waaye yemu ci tamit jëlal li nga xam ni moo di ab ngàndaay di arme teg ko ci moom maanaam menacé ko bu baax a baax menace de mort maanaam xupp yi nga xam ni xupp rey la waaye nañ ne boobu leen mbir ginnaaw suba rek moo daal des ñu xam njiitalu Pastef bile naka la yoon di dina teg ci kawam ca loolee sax moom mën na nekk mbir bi nga xam ni daanaka ba léegi li nga xam ni moom la ñu xamagum ci li ñuy wax mu ne ñoom moom joragul benn yoon li nga xam ne moo di ab kayit bi fir ni war naa dem wuy ji foofe ca tribunal lenn ci avocat yi Ousmane yi naka noonu lañ ko daal di waxee waaye nag parti kujje bi wes na wejji nañ ba tëdd ci naaj ba muy parti pouvoir xam le nañ ki nga xam moo di mais ministre de la justice daal xam ne bu baax le onze benn mën nañ ne Ousmane Sonko jot na ab këyit bi firnde nii bu baax war naa wuy ji foofee ca yoon lu ci mënta am ba am yoon yàggatul dara bis yàggatul dara ndax suba rek moo daal di des wéy leen di abonné fi nga xam ni moo di Buzz Actu 221 ndax lu fiy xibaar information jàngat ñu leen koy defal salaamu wa rahmatullah taala wa barakaatuhu waaye daanaka mën nañ ne li nga xam ni moom lañ ci daal di teg saa su ne comme jàngat yi nga xam ni dinañ ko faral di defee ak yéen muy Sénégal dafa nekk réew bi nga xam ni yaatuwul loolu yi réew bu ndaw la te jàmb rek moo fi xaj ndax kat gis nañu lenn ci li nga xam ni lu bees tàkk luy commencé di am ci mim réew mile muy ay ren recherche yi la yoo xam ni réew bu mu am bu nekk kaaraange ak li nga xam ni moo di réussir dina am foofee lu ci mel ni pétrole gaz ak lu mu làmboo kon daanaka réew mi wun nañ ne toog waxtaan ci jàmm ak salaam mooy li mooy lu wóor ki nga xam ni moo di njiit réew mi mu daal di teggi li nga xam ni lépp loo xam ni dafay lak nar taal réew mi ndax kat moom daan na xamle woon ne bu baax a baax bëriwaat na ci ay dossiers yoo xam ne moo ñu daal teg ndoddam